mbokk senegal ndongo li Modou Bey Diop moo leen di siyaare di balu ñëpp àq di balu ñëpp àq di naqarlu lu xew ci réew mi muy accident bii fi xew di sunuy mbokk di sunuy doom di sunuy xarit accident bi li ñuy metti metti lépp kenn gënu ci metti le oto ñàkk na sunuy employé ñàkk sunuy chauffeur ñeenti chauffeur dee na ci ak juróom benn emprunté kon metti na ci noonu naqari nanu ñuy ñaan yàlla mu gëj fi lool di ñaan président Macky Sall yoon yi xat na bis bii taxaw nii man maa koy dawal mais boo dajee oto bu mag da ngay moytu mu moytu mais ñaari oto yi xëyuñ ci diggu tëli bi rétroviseur yaa ngi laalante mën a dawal tax xale yi jàll oto yi dara nekku ci yoon lan paan dekk yi am deux ans dégg déggaruñu benn accident accident yi ko na bu baax a baax a baax ñi ngi jaamu ñi ngi ñi ngi balu ñëpp àq nag di ñaanal ñi ci faatu yàlla xaaral àjjana di baalu seen i mbokkatim ndax ay ndaw rek a ci nelaw ay ndaw yoo xam ne doo jóg pour liggéey am nay jigéen am nay góor benn safoor ñaanul yàlla di accidenté nun ñi oto yi ñoo leen dawal gis nga oto bi ma taxaw maa koy dawal ma ngi dem ba mandat wañ seen ñaan yalla yóbbu ci nit ñi jam wacc leen ci jam magal Tuubaa fi gëna xat ñi ngi dem jam ñew ci jam li nak bala bu yalla indi la ñi ngi ci tuwal ñepp ci jamu ñepp kenn bëggu def tante ñi ci gañu ñepp ay ndaw la mag wu ci kon nak nan xamne dogal yalla la na ñepp tek na li yalla moko dogal ten dimbul ci yoon yu bax yoon dal mënu gën sonal kay xol auto bi ma yor ni pneu yi ba mané nee nga ñew xol dama xol pneu yi pneu yi bét tak la ko montel nun pneu bu bees liñ ci xam moy pneu bu la jaay nga jënd pneu bu bees marque yi fi wacc ñoo nga mu dugg ci réew mi marqué yi fi wacc nan pneu yi bon la ñom ñoo nga mu dugg ci réew mi ndax fam jaar bu dugg ci réew mi ñom xam nañ ko sa mo ngi taxaw pneu yu bees tàq ko montel yu bét la ko jënd monté ko lool la man mënuma len mais marque pneu bi bi ni jaay pneu yu baax yi xam na ko na nga dugal ci réew mi te génn pneu loolu laa gis man sama xalaatu bopp pneu bu nu jaay nag na marque bii fi nekk bees ñu ko monté sama oto ngi wër ko pneu yu bees tax laa ci def loolu laa man pneu bu bees laa ma jaay moom laa monté pneu bu tooñ nag yàllaa koy dogal bakkan day day dox ba yàgg mu wadd pneu kon heure ne ma war na am mën a toj ni nga doxee ba yàgg bakkan wadd noonu la pneu yu tojee pneu kenn gàntu ko ngelaw rek a ci nekk ngelaw ak sant da ngay dawal rek ba lu yàlla def li may sant chauffeur daal mooy daw ndànk dox ndànk cay xalaat lu ñëw ñëwagul xam ne toujours moom yaa ngi yaa ngi ci daal message bi ma la wax président ay yoon la namul nun Kaolack ah correctement Kër Balla ba Tamba tëli bi ñaari oto xayu ci ñaari oto xayu ci tëli bi bii dee dugg moytu rétroviseur am bii dugg moytu rétroviseur am moom moo fi am accident bu am ñu indi ay dóor daan teg di dóor daanu jeexalu accident deux ans mooy jeexal accident mbot yi jaare nii yi jaar ne benn accident du am